Muusa moomu nag la yàlla joxoon ndigal yi fukki ndigal yi ak yeneeni ndigal ndax nit yi di ci jaamoo yàlla ci la yàlla waxoon ne ku bakkaar na nga jël xar te rey ko mu wuutoo nit ki ci tooñ bi mu tooñ yàlla Muusa daldi kontine ak bani Israyil te di leen diggal ndax ñuy def ay sarax yoo xamante ne saraxu mbaalum bàkkaar la wante sarax boobu dafa doon misaal rekk ràmmukat bi war a ñëw benn bés ndax ramu àdduna ci seen bàkkaar taxoon na sarax boobu motuloon dara ci bàkkaaru nit ñi ndax dañ ko doon def di ko defaat di ko defaat noonu nag bi nga xam ne sarax bi ku mu doon misaal dina gane ci àddina mooy ràmmukat bi musalkat bi maanaam ku ñuy wax Jésus yéesu dafa ñëw ci àddina ni ko yoonante yu bari waxe woon ci biir biibal bi noonu bind nañu ci biir téere bi ne di wax ci Jésus kiy seddal Yeesu di ko seddal ne xool leen kii mooy mbottu yàlla biy dindi bàkkaar ci àddina si